maa ngi tudd Fouleye Ndior euh, waaw dëkk bi moo ngi soog am courant euh, te c'est une vieille doléance boo xamante ne yegg nañ ko xaar depuis des centaines d'années depuis bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi xaar courant moo ngi soog a ñëw vraiment ñoo ngi ci sant bu baax a baax a baax teraanga moom teraanga rek moo koy fay amuñu dara ñoo ngi fii ci monde rural bi malgré euh, monde bi malgré difficulté yi fi ne population bi ñoom ñoo dajale bégul suusur qu'ils ont pour sargal président vraiment parce que moom yàgg nañ ko bëgg am nañ ko moo tax ñu def cérémonie bi pour sargal président ak waa Azer. xawoon na jaxasoo nag waaye yàlla def na ci ndox mu sedd voilà y a des y gens tapis sous l'ombre doo comprendre daal vraiment parce que lii mbiru mbiru population bi la mbiru waa sin la mbiru waa Sénégal la ñëpp ci war a jàpp président yaakaar naa am na ñi nga xamante moom lañ toog ci département bi ci région bi. bi pour ñu jàpp ci woo nañ ñëpp xam nañ dégg nañ ñu dégguñu mais population bi taxaw nañ taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war a taxaw ba bés bi am nga pancarte yi bëri nañ tout ça c' est des villages ñoom yëpp bëgg nañ courant c' est des villages environnants deux kilomètres de ñoom yëpp bëgg nañ gis seen pancarte ni ñu ko defee ni bu gën a xool bu baax ñi nga xamante ne ñoom lay teg ci département yi ñi nga xamante ne aussi ñoom ñoo ko représenté fii nii parce que ñii am nañ ci ñu bëri loo xamante ne daal doy na waar kenn mënu koo expliquer waaw mënu ma mënu ma ko tuddee yàq Nous nous sommes des acteurs de développement Nous